waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, sëñ Fallou Mbacké Jumaada moo dellusiwaat di ndokkeel sëriñ bi di ko sant di ko ñaanal ci barkeb sëriñ Touba toogaay bi mu toog toogaayu sëriñ Touba bi tamat ko sëkk te ñëpp doyloo ko ñëpp yaakaar ko yàlla ko ci yàlla defal ndam ci barkeb sëriñ Touba ba àggale liggéeyub sëriñ Touba bi fa mu bëgg mu àgg fa moom de taxawaay bi mu taxaw rek la war a taxaw tey taxawe na ko kon mel na ne tey lépp leer na kàddu boppam gaa ngi noonu te su fekkoon ne la war a am am na kàddoom gi du jóg kàddu Seex Basiru du jóg kàddu Sëñ Mat Lo du jóg du jóg du jóg ba sëriñ bi waxee lam wax wax kook ñoom nam ko war a waxee ñoom fekkoon ne mbaadoo la amut bu fekkoon ne njàkk gëm amut kon la sëriñ bi wax foofa la wax jeeyam waaye nit ku baadoo la du jub gàcce wàññeeku mukk tàggu ca gàcce ga tey nag leer na nañ ñi xam nañ ni ci caay-caay lañ nekk xam nañ ni ci jubadi lañ nekk te sëriñ bi leeral na ko waxoon naa leen ne sëriñ bi fu mu toll mi ngi wax li mu war a wax lépp mu ngi koy wax ci waxtu wa ko war a waxe ak fa war a waxee dégg ngeen mu wax ne lépp wax yi ñu ci waxaat yépp dégg na ko lépp lu xew dégg ngeen dégg ngeen ne ma ngi koy dégg ma ngi koy xam sëriñ bi dara du yitteem lu may liggéey bii nga xam ne moom la ay waajuram ak ay baayam ak i maamam dénk mu xëy ci suba di ci gont di ci bëccëgu di ci fanaan loolu mooy yitteem loolu nag mënut am ba noppi sëriñ bi di umbule li xew kon kenn ku nekk day naan sëriñ bi xamul li xew dégg nga ko ne waxal ci waxal boppam nee na li xew lépp xam naa ko yëg naa ko ba wax yu mujj yi mujj waxaat yëpp dégg na ko xam nga baadoo la weesuwut kilifa woola nga naan sëriñ bi daf maa dafa ma wooyee daf maa teral sëriñ bi daf laa digal tera la te loolu nag moo waroon tudd teraanga ji am teraanga weesuwut loolu nekk ci loo wër a nekk sa kilifa yëg ne nekk nekkoo ci li nga war a nekk mu wol la boppam mu naan ji wikkaloo la daf woola suturaal la wax ak yow li mu wax ak yow kenn yëgu ko nga wax ak moom la nga wax woon génn soppi wax ji wax jeneen wax loolu mooy mbaadoo la pire waaye sëriñ bi nag waxam ji la ma leen waxoon ne sëriñ bi dafa yaru sëriñ bi dafa am xam-xam sëriñ bi dafa bari teggiin sëriñ bi dafa mën a masla waaye nag ku la boo dégloo waxtaan yi discours fi mu tàmbalee fu sori la ko tàmbalee ba agsi waaye gis nga bi ma agsee ci war war leen tudd daf leen tudd ak doole wax li mu war a wax nag wax ko ni ko war a waxee te nag teg na ci ay tëkku ak ay xuppe yoo xam ne mi ngi ci kanam su fekkee xam nañu dara dañ dégg wax sëriñ bi su fekkee xamuñ dara nag dañuy dem ba dal ba dal ci kaw loolu te day jub rek la wax sëriñ bi daal loo wax lu may jub yaa ko wax waay moom waxu ko ci la nekk ci la nekk loo ñëpp ñi màndal la sëñ bëggoon yàlla bëgg ko yonent bëgg ko sëñ Tuubaa bëgg ko nekk ci ba jóge fi ay ña ko fi jiitu woon jaar ci baax si ci moom foofa rek lay tànkam kenn mënu ko féetale fenn fu may foofu lii nag mbir la moo xam ne bii sumb la boo xam ne ñoom ñi ko sumb xamuñ fu ñu jëm moom mbir la moo xam ne du sotti mukk ci àdduna dee su ko seetaan kenn du ci noppi kenn du ci toog li ci war lépp danañ ko def ak nu nuñ ko mën a defee su fekkee moom mi nga xam ne tekkiwul dara ci woon doonu ci dara ak tobbalagu ci ñëw dong moom mën a ñemee taxaw def nii di defi xalifa bi di defi murit yëpp su boobaa dana xam ne sëñ tubaa ngi fi kàddu sëñ tubaa ngi fi du fi jóg sëñ Sëñ di waxoon na ne kenn ba muy tas seen murit di nee na woon yet wi rey jaan yi mi ngi nii ñu teg ko fi mel ko teg fi rek janeen ju génn ñu rey ko moom itam noonu lañ koy reyee ñu reyee jaan jooje ak yee ko woon yëpp te képp ku nekk ci jubadi na nga xam ne dëkkoo kenn sëñ tubaa nga dëkk sëñ tubaa nga dëkk de tey day tey day eh, nañu xam ne day képp koo xam ne gi Sëñ Tuubaa nga dëkk de sa jël dana gaaw te daan te daan te it dana métti nag sullu lësi yu bari sullahul jalil sullu kullu salil képp koo xam ne kii Sëñ Tuubaa nga dëkk de yàlla nga dëkk te yàlla di mu ko dëkk ku nekk ndongu tax suuf moo ci gën a néew ca mbir ma mbir ma lay dal te day ah li wér te wóor de yomal kaam jëm te sëñ bi tudd na ko lu fa waay yóbbaale lu may ak jub da ko réccu de te lay sa yan faxu sax su xadaa xayru indi xulóo dara am si xayru moo tax nit ki de buñ koy dugalee ci bàmmeela lu mu fa yóbbu ak jub dana ko rëccu léegi nag li fi nekk mooy ñaar yëf rek moo am ànd ak sëñ Touba jëfe ndigalam ànd sëñ Touba nga def la neex waaye bul tuddee bul tuddoo nag ab murit liñ dul nangu daal mooy muy def caay-caayam yii ba noppi di tuddoo sëriñ bi loolu moom kenn du ko may kenn du ko may sëriñ bi nag li mu war a wax na ko wax na ko waxin wu leer. dégg ngeen li mu wax dégg ngeen yi ko dendaleel yëpp mu wóor leen tey bu lislaam doon àtte xam nga sëriñ bi da koy jàpp mu ñëw ñu dagg ba bi waaye nag comme lislaam àttewut ah sëriñ bi lim man mooy wax li mu war a wax nag wax na ko te it nag su ko neexoon tam mu faj kook doole nag waaye moom nii lay doxe nii la fekkoon ay kilifaam di ko doxee moom it noonu lay doxee kon ma bëgg rek xel yëpp dal ci ne yoonu sëriñ Tuubaa wii dégg ngeen sëriñ bi kenn mënu ko yàq rawate nag yàqu ku yàqu nag mu waxaas ki defaru sax mënu koo yàq woo ma la yàqu kon nag nañ ci dal xel bu baax xam ne li wér yee fi jaaroon bari na waaye leen lu ci nekk da koo teg ci yoon lam ci war a wax mu wax ko moo mu wax mu wax ko moo le moo yilif murit yi ñoo ko waxal seen bopp kenn ku nekk bi ngay ñëw ci yoon wi kenn wóor kenn daawa am na ci waaye di dihaaya amu ci amul campagne amul dara kenn ku ne yaay ci bàyyi sa bopp bàyyi gi sa bopp nag mooy da ngaa wax ne loo ma digal ma def ko loo ma tere ma bàyyi ko mu digal la li la yàlla digal yonent bi digal Sëñ Tuubaa digal la ko teral li la yàlla tere yonent bi teral Sëñ Tuubaa teral la ko léegi nag yaar yooyu moo nekk sa diggante da ngay def mbaa nga bàyyi soo bàyyee nag bul boole sa bopp ci yoonu murit wi nag tey nag kattan nekku fii de gumay kattanu sëriñ bi kuy dawalee kuy kuy tëggoo ko fëggu la nga yor la ko jox sëriñ bi nag nim nim nim la ko joxee Euh, sëf de moom moo gën a yomb moo gën a moo gën a métti moo foog sippi ndax sëf moom boo koy def fokk sa ñaar loxo ci ànd sippi nag da jàpp ci collu ba rek ñoddi moom de bu neexoon sëriñ bi yooyu yëpp du ko ci fekk moom naa joxe ndigal de bu dee ci saahir ji faj ko ba mu jeex takk bu dee ci baatin waxaale wu ma ko kon nag murit yi dégg ngeen waxi sëriñ baa ngi noonu loolu nag amul lu ñuy wandal amul lu ñuy gaaral amul lu ñuy saraa wax ju leer nañ ñi la jëf rek moo fi nekk mbaa bàyyi seeblaat de ba mu joxee ndigal li fii te am naar fii ci Mbàkke ne moom moomoom boppam mbakkee kenn moomu ko moom li moom lii day jaay yëfam sëñ Abdoulaye laa na bu leen xeex ak moom bu leen ko dóor bu leen ko def dara waaye digal naa bépp murid nag lépp lu muy jaayati mbaa lu ci moom na ngeen ko fa romb defe naa ko defee diir ba mu dem ba xamante ba mënatu dem laa réew dellu si kon nag murid yi maa ngi leen di wax ne mbooloo moomu bokkuñ ci yoonu murid sëriñ bi digal na leen lank nañ waññeeku di transféré wax sëriñ bi di ko def leneen léegi nag yéen murid yéen a ci des nag sëriñ bi digluwul kuulóor kenn sëriñ bi digluwul ko xaañ kenn sëriñ bi digluwul ko xas kenn waaye nag am leen fayda ju toll ne nag ngeen bàyyi ko fa nag ni mu fi bàyyee sëriñ bi ni mu fi bàyyee digal sëriñ bi ngeen bàyyi ko fa ak mboolem ko ànd ak moom nag koo xam ne ki nag yaa ngi jëflanteeg moom di maslaanteeg moom nag kon yow waxi sëriñ bi daf laa ñor waaye bu la waxi sëriñ bi ñoree daal képp ko ànd ak moom nang ko fa ne ñukk bul waxateeg moom bul jëflanteeg moom daraati ndax bokku leen fu ngeen jëm te ginaaw ginnaaw leen fu ngeen jëm nag mun leen a ñaar ñu bokk fu ñu jëm mënuñoo ànd kon li wér daal mooy sëriñ bi moom dégg ngeen kàddoom léegi leer na ci murit yëpp kenn ku doon wax naan lii lii ñu wax sëñ bi waxu ko sëñ ko ak loolu mu naan sëñ bi dafa maa dégg ngeen sëñ bi li mu wax kam joxoon ndigal di di saa yu cuun la mu ko waxoon ma nga ca nañ jaar ci yoon wi nañ jaar ci yoon wi diggante Cheikh Béthio ak sëñ Saliou kenn nekku ci waaye ñun ñii fi des nag liñ man mooy teg suñu tànk ci siraatu mustaqima noonu mu ko waxee nañ ànd ak sëriñ bi te déglu ko fa sëñ bi jëm ñu jëm fa loolu muy wax nag naan université baa gàmmu gaa nga yooyu yëpp noo nga xaar ci kanam bu fekkee ne maanaam yoonu murid wi sëriñ bi digle tere mu ne li sëriñ bi tere dana ko def su boobaa noo ngi toog di ko xaar na xam ne day nun day sëñ bi du dañuy déglu sëriñ bi rek waaye am na foofu nag bu fa àggee murid yee koy fajal seen bopp duñ ci xaar kenn ba gàmmu ga du gàmm gi wax na ko woote na ko noo ngi xaar su boobaa dana xam ba xam ndax Sëriñ Tuubaa am na fii ñu ko fi nekkal wala amuñ ñu ko fi nekkal wala moom moomee nga xam ne ci caay-caay dong la nekk ànd ak mbooloo moomu ak ñi koy jàppale ndeg ba xam ñoom ñoo ëpp doole Sëriñ Tuubaa at ëpp doole mbooloom Sëriñ Tuubaa bi ba tax li sëriñ bi ne bu mu am mu ne dana fi am su boobaa nag bañ ci àggee feek teguñ ci bët du ko mën a gëm lu boobaa nag booba noo ngi fi noo ngi fi nun de sunuy euh, Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne yëre Eh, saxaaba yi ñooy seen baay ci diine saxaaba yi nag ba ñuy taxawal diine ñoom seen deret lañ jaayoon ak seen bakkan su boobaa nooy itam nag lum jaar daal na ko jaar yoonu sëñ Tuubaa wi daal sëriñ bi kafu ci kafluwu ci nu itam duñ ci kaf duñ ci kaflu képp koo xam ne kii ne dégg nga baatuk sëriñ bi ba noppi di wax leneen nag su boobaa yow it danañ xool sa mbir booy la ca mbooloo moomee kon nañ góorgóorluwaat ni ko sëriñ bi waxee tegu ci jub déglu sëriñ bi bu diglee ñu def bu tere ñu bàyyi képp koo xam ne kii bu la sëñ bi digalee doo def nag bu la sëñ bi teree doo bàyyi ñu ñu xam ne yow génn nañ la sëñ bi nee nañ la sànni ca sën ndax ndax ndax ndax sën murit de bañ koy fee sëñ bi laa dane woon sën moom lu bon rek lañ fay sànni kon nag nañ nañ nañ nañ leen jël sànni leen ca sën ba loolu waxin la mooy nañ leen teg nee buñ leen boole ci sunu dara nag lépp loo xam ne ni nag yëkkati nañ ko ngiruk reewande ak bëgg a weddi sëñ bi ak bëgg ko yàqal su boobaa njabooti sëñ baa ngi fi taalibe sëñ baa ngi fi koy faj kon bokki taalibe yi lii lu bees la loo xam ne lii day loo xam ne lii buñ ci taxawut man mën naa indi leneen te nag yàlla moom dafa jàpp nangeen jàpp na ngeen jaar ci ci siraatal mustaqima mooy mooy ci sabila mooy yoonu jub bi waaye nag bu leen topp subul yi ñàll yi sëñ Tuubaa nee na aw ñàll nag moom aw ñàll nee na soo ci toppee la la ngay mujj rek mooyu fu fuy fii rek fuy fii rek fuy fii rek ci gànnaar de am na ñoo xam ne ba leen sëriñ bi jàngal ba leen sëriñ bi ba leen bi jàngal ak jub ba te fekk ñu ngi jóge woon Sénégal réer sëriñ bi dafa toog ba guddi mu taxal lu mat mu bari taal ko mu def sébu bu mag sébu bi di tàkk ci kaw xamuñ lu ci sëñ bi jublu ña réeroon bañ séenee tàkk-tàkkal ba ne sàkk-tàkkal kata nga ne nañ ci wuti ba xam bañ agsee ci guddi nuyoonteeg sëñ bi ba noppi sëñ bi ne lu leen gindi ñu ne ko sawara wii de moom lañ seen gindee ko mu ne bu ëllëgee yomal xiyaam itam kuréel ku ne sawara lay gindi kuréel ku ne sawara lay gindi te saytaane waxoon na ne sëñ Tuubaa ma lu ma la dara de yow de jéemal naa la wet gu ne ma lu ma dara waaye nag yaa ngi nii bëgg a dem waaye na nga xam ne de sa sama mbooloo danaa ko booleek sa mbooloo boo liggéey da seen mbooloo moo xam ne mama la ñuy doon àndandoo doxuñ sax waaxuwuñ dañuy daw te ñoom ñëpp man la ñuy tuddoo te ñoom ñëpp sawar lañuy sawar la ñuy gindee ko lii nag mbooloo mbii nag menn la ci te it nag buñ ci taxawut day gën di yokk rek kon nag nun murit yëpp nañ ci taxaw am fay ju toll ne lii sëriñ bi bëgg tam leeral na ko ci làmmiñ ñu dégg ko ñu daal di koy defee ni ko sëriñ bi bëggee képp koo xam ne gis nañ ne ndigalul sëriñ bi ñoru la ñoo bu ñu ñor buñ la boole ci dara buñ jëflanteeg yow ci dara suñ su fekkee mën nañoo dund loolu nag te it nag buñ leen may itam ñuy tuddoo murit nag nañ tuddoo leneen lu leen neex nañ ko tuddoo sëriñ bi nee na ku ne am nga liberté waaye nag liberté gi rek bokku ci nag nga fekk nag yii fi jàmbur nga bëgg koo tuddoo nag ba noppi la borom bëgg ca mbir ma doo ko def kon murit yi dellu siwaat leen baax dellu siwaat dellu siwaat leen baax xam ne noo ngi ci axiru samaan yàqkat yu ban yu yu yu bon yoo xam ne dañoo am ñu ñu lëkkool ci suuf fas yéene yàqal lislaam yi wet gu ne jaar nañ ko nag mu të léegi nag ci ndaw sii lañ ko bëgg a ndaw sii nag saytaane rajim la te it buñ ñu bari da leen fi faale ndax bëgg njariñul àdduna ndax mbooleem nga koo ci dégg muy wax wax ji lu bari bari du dëgg gëmu ko alali àdduna ji rek moo tax mu di ko def te àdduna amul solo day jeex day jeex yowmal qiyaamati lañ jëm kenn ku ci nekk war nga am looy bàyyi xel te xam ne sëñ Tuubaa bii dañ ko yaakaar ngir yàlla ngir yàlla ànd ak moom mu digal nu lu leer nañ ñi tere ñu lim ñu war a tere ñëpp ko xam kon nag li ci des mooy tey teylu la ku ci ànd ku nekk yaa ko tey sëriñ bi ni yëkkati na kàddoom dégg nga mu ne sëñ Basa ngi nii toog sëñ Modou Lo ngi nii toog loolu wax ju leer nañ ñi la te nee na narutoon a wax sax daa waroon a bàyyi naroon a bàyyi ndax wax li ci baax moom boo koy wax mu am njëriñ waaye dana am njëriñ de Mbàkke wax ji dana am njëriñ de ñu ko war a dégg danañ ko dégg de ñu ko war a nag moom sëñ bi jëriñu sax bàyyi waale xel ndax walaa kena ak sara naasi joo ci alxuraan laa moo ca tegu walaa kena ak sara naasi joo gis laa rek moo ca tegu ñi ëpp ci nit ñi moom ke ñu baax laa yaf xaxoona laa yas kuróona laa yu uminuun noonu la ko toppee ba alxuraan jeex ñi gën a néew lépp loo gis ci àdduna mu am fi ci lu baax ñi gën a néewoo ko def kon nañ fokk bokk ci ñi gën a néew ñooñu rek ba daal islaamu xariban wa sahodo xariban xariban fa tuuba lil xoroba l'islam bi bi ñëw dafa tumuranke woon lool dana delluwaat nag ci tumuraanke waaye nag bu boobaa ñi nar a texe mooy ñi ànd ak lislaam ca tuumarank googee mooy yoonu murid wii nag kon dañ nañ góorgóorluwaat bu baax jàpp ndigalul sëriñ bi lii dañ ko effacé mu jóge fi ba bu ëllëgee képp ku ko sa xalaat nga xam ne du sotti moom day moom da royut kilifaam nga ndax kilifaam nga ne ba mu ko waxee ne da koo seexal te seex bas miy jóg ci ànd ak murid yëpp taaw ci moom day bañ ko waxee daf naa wax ne ba teg naa ko fi suuf ndigalul sëriñ bi laay def sama ceexuk bopp gi sax bu ko neexee ma daal di koy tekki moom de bu fekkoon ne li muy wax dëgg la ci moom bi ko sëriñ bi joxee ndigal ñaar du ci bokk